Colobane lañ ko fekk daanaka jot gi barewul ndax commande mayo yi tàmbali naa bari. waaw marché bi mu ngi dox nànk-nànk mu ngi dox ñu ngi ci kawam mu ngi dox nànk-nànk. waaw waaw bi commande ñoo ngi ñëw nànk-nànk rek. keneen ku ñu fekk fële ca parcelle di yëngu ci wàllum flocage yu mayo yi moom itamit dafay defar ba ñaar fukki mayo jëm kaw par bés. mais sans dépend nag ci journée bi ak gars yi ñëw mais lu mu kii moom lu mu ndaw ndaw dinañ def ay vingt trente maillots. waaw bu weex moom moo gën a dox waaw parce que la plupart moom la ñuy footballé gars yi moom moom la ñuy gën a choisir quoi. njëg yi nag mi ngi nekk ci diggante juróom benn téeméer jëm kaw. non ça dépend am na ñoo xam ne dañuy ñëw yaa leen di jaay moyo folekeel leen ko am na ñoo xam ne dañuy indi seen moyo nga folekeel leen kese ñu dem. par exemple ñii boo indiwoon sa moyo pour ñu folekeel la ko 3000 nga dem. bu nekkee léegi yaa ko def ça dépend am ça dépend parce que mooy dafa am ay différence am na yoo xam te buy wàcc du am dara léegi ay personnalisé yoo xam te ne ñoo ko ciy def da ciy joué quoi. yenn saay nag client yi di yàkkamti daf leen di indi la yoo xam ne duñ comprendre dañ lay teg pression. du fi gars yi duñ fausé xam nga fi groupe la quoi su ma fi nekkul rek keneen moo fi nekk su ma fi nekkul nii may wax fii gars yi kenn rek su ma woowee sama frère yi kenn rek fii moom groupe la. xanaa ñu ñaan Sénégal gën a sore ci compétition bi ndax bu boobaa marché day gën a neex. xam naa suñu qualifié moom la gars yi gën a ñëw incha allah mais am naa yaakaar que dinañ dinañ sori daal waaw. Sénégal plus que muy gagné affaire yi allah di gën a neex incha allah te yàlla di gën a neex ñëpp di si gis seen bopp.